sujet d'actualité. Aujourd'hui, on a vu les avocats d'Ousmane Sonko fait une requête au niveau de la Cour suprême pour procédure bi mhm. accéléré pour mën ko parce que l'élection Cour suprême résiste na requête mais quand même euh, aujourd'hui est-ce que nous avons si contentieux électoral Ousmane Sonko ak du Sénégal est-ce que nous jël en compte que est le candidat à l'élection présidentielle man nag li ma candidat yi dañoo bëri deux cent soixante huit. mais yow Ousmane Sonko rek ngay tudd. waaw parce que mais la réalité politique la aussi aujourd'hui yow Amadou Ba nga tudd nga moom nga bind parce que dana jàpp ne moom société. waaw kon nag kon nag ah. bu reproché loolu kon. ah, <laughs> ah ok kon bu reproché loolu il faut ma tudd alors est-ce que aujourd'hui nag. Hmm. waruñ justice waruñ jël loolu en compte que puisque candidat de Ousmane Sonko ma ngi de seen loxo et que peut-être dans 10 jours parrainage yi xëy na dootuñ joxe fiche de parrainage ñu accéder le dossier àtte ko ñu xam fu dëgg féete parce que ba léegi

dañ ko koo demandé ni ko dañoo bëgg rabat d'arrêt ñu rejeté sen demande bob man lu tax ñu rejeté ko motif xey na ñom wax nañ ko doyna na ñi ko demandé am doy ju ko man mënu ma du man may apprécier à la place des juges mais li ma la bëgg wax rek modi c'est tout simple processus électoral la amna ay règles électorales yi nga xam ne que ñi ngi koy appliquer wala dañu appliquer demb ak barki demb parce que ce n'est pas parce que Ousmane Sonko le tudd que dañ ko war a appliquer ay règles spécifiques xam nga lan moo waratul nangu. candidat pas Ousmane Sonko mais candidat la non mais non mais mais candidat la am na yeneen candidat yi nga xam ne xëy na am na seen yeneen raison yu tax seen seen dossier jàllul. am na yeneen candidat am na yeneen sénégalais lu leen tënk mais aussi gis naa seen yenn Sénégalais yi nga xam am na lu leen tënk bëggoon nañoo nekk candidat wala seen candidature mënut a jàll ndax loolu loolu mooy li nga xam ne mooy mooy politique bi maintenant nag dal na ci tey Ousmane Sonko daloon na ci Karim Wade daloon na ci Khalifa Sall daloon na ci keneen ak keneen mais tey justice baa ngi fonctionné ci noonu parce que aussi justice li parfois dañ leen di wax lu bari mais mënuñoo fonctionné lu règle yi nga xam ne moom ñu tëral néew ñu ngi koy matal du man maa ko war a wax mais dafa am ay charte yu ñu technique bu ñuy atte ñoom bu ñuy doxal nii la ñuy doxalee te man nag ma jàpp ni que ka nga xame ne wax dëgg yàlla hmm, daa judd màgg jàng def ay concours ca école ya gën a kowe jël filière ya xam ni moom moo gën a kowe def liggéeyam ba yàlla àgg ko ci benn niveau bi man aw ma sañ-sañu naan kii dafa jubadi wala kii du nit ku loxoom setul wala ma mën koo tuumaal naan dafay par parloo te moom mu waat di du par parloo te mos ma koo xamal mais parce que pourquoi lu ñun bu ñu amee décision xam ne favorable lu ñu rek ñu jàpp ni que dafa am wuruj. loolu aussi tous les acteurs politiques. ah non mais non tous les acteurs politiques non non. ah c'est tous les acteurs politiques. non à chaque fois que la décision la décision. non da nga naan da nga naan da nga naan c'est les acteurs politiques de l'opposition parce que pouvoir jël nañ fi ay décision yu leen favorable ñu and ca. yooyu juste joxul fi deug Ousmane Sonko nga taxaw ne Pastef la bok nga ni non mais non mais justement. ah mais non mais non non non man dama tek dama tek ay fait. te ñooñu récuser la ñu la yow doyoma indi ni que doyoma ndax li moo tax doyoo ñu ni la kon xaaral ñu yobbu su ko ci sa kilifa nga ni duma xaar sama kilifa tontu ci lolu parax parax rentre décision luñ la tuumaal yow ah mais non mais si du juge qui est tribunal de instance de mais moi, je suis personnellement intuitif personnel lañ ko récuser ci ni ma tribunal di ni juge yu est Dakar def di ay naataangoom bañ leen récuser. dafa récuser dafa oyof. ñoom Ousmane Sonko récuser leen dafa oyof. rakkam adjoint maire la. loolu waaw mais am na ñeneen ñu fi loolu dafa oyof am na ñeneen ñu fi rek non loolu Sénégal. mais fii dafa bëri ay mbokk si justice bi ah. waaw am na ña nga xam ne dañ leen récuser ci waa waa Ousmane Sonko ñu leen récuser ci loolu ñoom ñun am déet am na fi amu fi. ñoom ñoo ñoom ñoo jël seen responsabilité. non xam nga bul bul dafa woyof lu loolu lu mu woyof

man loolu la loolu moom moom la moo leerul sama xel loolu kay amul fenn ku ah, nekk am mais moo tax nag kon lan lan voilà kon nag kon yaa ngi indi wax yaa ngi leeral wax ji bu dee moom ay nawleem ay naataangoom ñi nga xam ne gënu leen a jàng gënu leen a jub gënu leen a nekk magistrat dañ leen récuser ci condition yooyu ñu bàyyi moom ñu récuser ko bàyyiwul mais ñu ni ko kon nanguwoo bàyyi mais xaaral ba sa kilifa tontu mu ni du ma ko xaar

voilà. donc ok alors d'accord dernière question aujourd'hui euh,